voilà maître Alioune yow yaa nekk médiateur de la tey ci kër si Sidi Mokhtar ni ku yeeslu si waaye tamit ñu bëggoon nga jox ñu ay kàddu sant suñu borom mi nga xam ni ci moom la ñu jógee te ci moom lañuy dellu ñu nangu ndogalam ci sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar di ñaan suñu borom mu yokk ay leeram yaatal ay këram kon ñëpp daañ ci xaj ndax sëriñ bi ay yoonu yoonu yoon bamtuñu ci suñu nopp ni sëriñ Touba fàggul nañu lépp kon ñu ñëw ziar si Cheikh Mountakha jaale ko magam jaale ko nijaayam jaale ko ki nga xamante ni ba mu nekkee ci jal bi moom la jël def ko loxo ndeyjooram def ko loxo càmmoñam def ko bëtam def ko noppam def ko ay tànkam am na lu ñu metti naam waaye jàpp naa ni Cheikh Mountakha moom moo ñu ko ëppale foofu ndax wéetaay boo xam ne dab na ko waaye tey njaboote na képp ko nga xam ni eh, jullit nga képp koo xam ni way gëm nga te nekk ci biir Sénégal ak bitim réew loolu moo doon tànk yi ñu jàpp ni si Sidi Mokhtar loon rek xalif général de Mourides waaye c'était le xalif général de tous les croyants parce que nous avons vu défiler à Touba toutes les obédiences religieuses du Sénégal nous Nous avons vu d'autres confréries musulmanes du Sénégal. Je pense que le témoignage le concernant a été fait à l'unisson. C'est un homme de grand bien que le Sénégal a perdu, qui a toujours tenu un discours d'unité, mais un discours également de rassemblement. ñun nag yàlla daf ñu jagleel ñu am ci moom ah amuñu ci moom lu xam ne ñeneen amuñu ko waaye am nañ ci moom loo xam ne daañu ko fàttaliku suñu giiru dund ndax ay jaar-jaar yoo xam ne jaar nañ fa foo waajur rek moo fay féete doom jàpp ñu jàppale ñu teg ci yoon ci ay jamono xale yoo xam ne wétoon nañu lool moom mu wéttaluñu def ñu doom di ñu joxoñ di ñu jox ay ndigal ñu di ko jëfe mu ñuy jox ay yeneen ndigal yoo xam ne ay tere lañu di ko moytu kon suñu ngërëm ci moom yal na ko suñu borom fayal ñu ko. en français deux mots. oh des remerciements qui n'ont pas de limite nous avons vu disais-je tout à l'heure défiler à Touba toute la communauté des toute obédience et toute confession confondue. Cheikh Sidi Mokhtar est un homme de grand bien, nous ne cesserons de le dire. Il réunissait autour de lui la somme de toutes les excellences. Cheikh Sidi Mokhtar est quelqu'un que le Sénégal ne pourra plus jamais retrouver en aucun autre de ses humains. Cheikh Sidi Mokhtar, à travers son œuvre durant ces sept dernières années, a été pour nous en tout cas militant les premières heures de l'Alliance pour la mais façonnant ce parti aux premières heures, bien avant qu'il ne naisse, quelqu'un qui nous a orientés, qui nous a mis là où il fallait mettre les pieds. Je me souviens encore me convoquant à Touba pour me dire qu'il y a trop de bruit à Dakar. Si c'est les élections qui vous intéressent, dites à Macky Sall de prendre la clé des champs et de battre campagne. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce qui a voulu au président de la République à ce jour d'avoir été élu certainement sans coup férir. Parce que chez nous, il n'y a rien de plus grand que le respect de l'autorité et celui de l'obédience à la parole donnée. Merci. ah loolu xam la rek ndax bi nga xamante ni wut réew mi jib na euh, laataam sax ñuy jógee ci PDS nekkoon la suñu wet ci joxoñu Serigne Abdou Fattah bu Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ba nga xamee tàmbali nañu ba di ci dox saa su nekk ñu di ñëw ci moom di ànd ak sëñ Cheikh Marema Mbacke ba nga xamante ne nag teg si nañu ci biir campagne bi te ñu ci bare ci ñun campé woon place de l'obélisque daf ma woolu ni ma bu fekkee wut réew moo leen tax a jóg ci njëkk ak teraanga jàpp naa ne war ngeen génn ndakaaru ngeen dem campagne seeti nit ñi ndax ci noonu ngeen di amee la ngeen bëgg ci noonu laa ko communiqué ba président Macky Sall jóge ndakaaru commencé battre campagne ba yàlla may ko ndam kon moom nekkul woon rek quelqu'un qui est détaché des contingences matérielles mais il était vraiment là dans la vie et dans le cœur de chaque citoyen parce qu'il vivait son pays et son peuple nekkul rek koo xam ni dafa fatu tëju waaye xam na lépp loo xam ne xew na fi ndax aux premières heures dafa taxaw ci suñu wet kon nag tey war nañ ñun ñëpp ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon xam ni au-delà du marabout nous avons perdu un patriote